mooy suratu huut tudd gim tudd baatab huut di am yonantu bu yàlla yónni woon ca niti aad ña moo tax mu tuddee ko saar wi mooy tuddee lenn wala tuddee lépp ci turu lenn màkka la wàcc ba mooy aqimi salaata ak lu dul fa laalaka taariku loolu rek ñu ne moo ca wàcc madina saar wi téeméeri ñett ñii ne ak ñaar fukk ak ñaar saar wi dafa ca lu ca muy alif laam raa nga xam ne yàlla dong moo namu lam ca xam moo namu moo xam lam ca namu ñu ne alif gi la juju bépp tur yàlla bàyyi ko alif niki ahadun laam gi di junj turu yàlla bu bàyyi ko ci laam niki latif raa di junj yàlla wu bàyyi ko ci raa niki rahmaan waaye lu ci mën a am daal allahu alamu bi muraadihi téere boo gis wala machine boo gis wala tëjeekaay boo gis am na code alquran nag xaraf yi mu hubbee saar yi mooy code yi am na ci yoo xam ne code ba benn xaraf la ni ci xaaf mbaa saat am yoo xam ne code ba ñaar la niki hamim am yoo xam ne code ba ñett la niki alif laam raa am yoo xam ne code ba ñeent la eh, dégg nga am ci yoo xam ne code ba niki alif laam mim raa am yoo xam ne code ba juróom la kaaf yaa ayn saat ak himim ayn siin qaaf kooka nag ki ko côté di yàlla doo nga ma ko xam ak kim décotel code ba muy Seyduna Muhammad moo tax jibril mi ko indi bi mu waxee rek yow xam naa jibril yooyu mu ne ko naka ngay xamee lu ma xamut maa la indil kaaf yaa ayn saat lu mu ne kaaf nga ne xam nga lu ma wax nga ne xam nga taman xaw ma ko kon yàllaa ko côté kam ko décotel dong la ko xam ñi fi am seen machine yi ñu fonk yeeg seen valise yi defal nañ ko code seen ordinateur yi seen site yi ñoom dong ñoo mën a décoté génne code ba lu dul ak ak lu àqul nga xamal kese bismillaahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa bépp mbindéef ci àdduna bi arrahiimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira alif laam yàlla xam lim ci namu kitaabun moom de téere la oqimat boobu xereñeef na aayaatoo aayaam yi ci kéemtaanu nose ak ci kéemtaanu balaaxa suma fusila topp farañ fànceef na xàttee ca nekk ak xisa ya min la dun xakimi mu tukkee koo ca ka nga xam ne xeeña xàkkoon la xabiiru nekk koo xam ne ku dañ kumpa la def na bi maanaa euh, bam ne rek bam ne bam ne maanaam uxkimat xam nga uxkimat kooku moom moom xakimin bam ne tamit maanaam fusilat kooku moom moom xabiirin su ko defee nag yàlla ne euh, dégg nga an yeey laa taabudu bu leen jaamu illaa ndara yàlla inna nii naka man nazirun aji waar la lakum ñaa leen munu ci moom ci alquran minu ci mbugalam yàlla ma wa basirun aji bégl laa ci payoor bu ngeen gëmee wa an yeey istaxfiru jéggalu rabbakum seen borom su ma tuubu topp ngeen tuub kon istixfaar ak tawba duñ benn tuub leen ilay jëm ci yàlla ci topp su ngeen ko defee yu mat dana mu yóbbal leen ci àdduna mataan ak yóbbal xasnan gu rafet ilaa ajali mu jëm diir Moussa man nga déggoon tubal nga déggoon tudd kon ndeke tuub ak istixfaar day waral yokk ak wërsëg day waral tamit naat su ko defee wa yuuti dana mu jox moom yàlla ci àllaaxira kulla fii fadlin bépp borom ngëneel ci jëf faddaloo ngëneelam la mooy payoram wa in tawalaw su fekkee da ngeen dëddu walis maanaam ngeen gëm yàlla fa innaka man aqaafu naa ragal alaykum ci yéen azaaba yawmin mbugalam bis kabirin boo xam ne bu mag la marji xokkum seen ak delluwaay yéen ñëpp de laa jëm na ci yàlla wa moom yàlla tamit xadin aji xattan la alaa kulli si ci lépp lëf de kon gis nga taw tawba boo defee bàkkaar sartaay tuub bu déekul bay bàkkaar ba muy iqlaa réer ci lu taxoon ngay def bàkkaar ba dogul ci sa xol ne dootoo ko defati nga def nag dabaatal asaka yàlla rëccoon nga fay ko julli yàlla faatoon nga dabaatal ko xàq yi doxoon sa digganteeg nit ñi ci lekk seen xalal nga delloo leen ko te baalu leen àq ca tarde maaga lii mooy tuub balaa mën a wér day mel ni xalu safara xalu safara ku dëgg ba dëgg ca dese nga beneen tëbin tëbin gi nga tëb nag dali fële mooy laa réccu danga nga réccu lu taxoon nga dëgg ci ana damu alaa maa faata xaw ma ban xal moo lay lakkati waaye doonu doonu wii da ko fi jëlee mbaa nga jógee koo fa yow su ko defee tamit kooku nag mooy wan niyatu allah yahuda ila bin tuub boo xamee meloo xalu safara rek su ko defee yàlla nangu ko nga dabaatal nag dabaatal ga mooy jëli ndox ñëw fay safara wa mbaa nga toxalee ko fa mbaa nga gas ko suul ko loolu kon mooy la ca faatoon moo tax tuub daal boo ko bëggee xam mi ngi mel ni kuy tukki amuloo pees jéggi frontière buñ la jàppee métital yaa mbugal ma dañ lay delloo xaat fa nga bàyyee ko woon kon bu dee koo ngóog delloo ko xaat nga fa nga neexoon da réccu lu taxoon nga jéggi frontière de da nga dogu ne dootuma jéggante frontière li ma ko ko ci mbugal kon yi bu ko amee rek am na istixfaar nag mooy na nga toog nag di jéggalu lu taxoon mooy jéggi frontière ba coono bi ma ma daj ci maa ngi koy jéggalu yàlla kon lii mooy tot euh, diggante farqu ba ak istixfaar ñoom ñaar ñëpp nag def ko balaa istixfaar a am rek day nekk ci gannaaw tawba moo kon naa al istixfaar baada tawba loolu mun lay mën a nekk dana sabab ubbeeku wërsëg ndax bàkkaar la lam doon rek la doon boo jëlee bàkkaar boo ko boo ko xal boo mu jox la bekkoor ku nekk ci bàkkaar mënu mukki ci bekkoor dara nga ca mënut man ngaa bekkoor sa yaram ci wéradi man ngaa bekkooree fan wu gàtt man ngaa bekkooree ay ay ay tolof tolof man ngaa bekkooree xalal ju yàqu man ngaa bekkooroo yaakaar ju tas man ta ñàkk boo nekkee nag ci topp yàlla def ndigalee bay tere ya su boobaa nag yàlla soppi sa bekkoor naataange ak xéewal nga nekk ci jàmm moo tax sax euh, jubal nekk ci yoon wu baax day waral tabaarakallaahu day waral maanaam taw bu bëri wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan xadaxan la asqaynaahum maan xadax la asqaynaahum maan xadaxan xamar nee na nag fu ndox bëri wërsëg bëri fa fu wërsëg bëri fitna dootu fa jógati wa su yujudul maa'u yujudul maalu wa haysu yujudul maalu tujudul fitna dara nga ca mënut kon nag istixfaara ngoog aay ji day tekki na ñett mënta ñàkk ñaar mënta ñàkk sariya ak xaqiqa sariya bu leer boo ko toppi mu yóbbu la ci xaqiqa sariya kese bu duut ànd ak aatila la sariyatun bila xaqiqa aatila waaye sariyatun nag xaqiqatun bila sariya baatila xaqiqa bu àndut ak sharia ñaan dong la moo tax maam xalifa ne kam baatinin yowmal qiyaamati baatin baatin fekk baatin rekk la yowmal qiyaam yal na yàlla musal ci ku topp maanaam géej ak sharia gine nga koy xuusee bu yàggee rek moo lay mbañ nga mën a koo xuusee ci gaal ak xaqiiqa gu wér a wér a wér a wér doo suux doo lab doo lable aaya ji ci ci axnas la wàcc ku neexoon làmmeñ la bu dajee yonent bi wax ja rafet lool bu wanee gannaaw wax ja bon moom moomun aaya wa min naasi man yujibuka qawluhu loolu la ñu bari wax la muy leem ca dënnam ba ci ay pas-pas yu bon xiina yu bon bokkut ak la làmmeñam way tàllal ñenn ña ne déeréet aaya ji ñu gëm yàlla lool xam kersa ci yàlla ba bu ñuy dem wanag dañuy jël seen xarxaram ba leem ko ci seen tànk ya ngir xeres yàlla dañuy xam xeres tamit di wéet ak seen soxna yi yi sëy ak ñoom nuñ mën a nëbbutoo ña koy def moo tax buxaar yu loolu la wax moo tax mu ne allah waawee innahum naka ñoom yes nu na danañu leem su dóoruhum seen dënn ya waaye dënn kenn mënu koo leem la ca biir la ca namu li yastaxfu ngir nañu nëbbu minu ci yàlla allah waawee xiina yastaxsuuna waxtu nga xam ne ña ngay muur fiyaabahum seen yëre ya di ko muuroo ngir ak kersa ci bu ñuy dem wanag mbaa ji ak seen soxna yi yàlla mu xam na moom yàlla maa yu sul lañu ñu koy feeñal de innahu naka moom yàlla alimun xamaa kon la bi daal di sul nekk jëmmi dënn ya de waxumal na kon la ca dënn ya lépp yàlla xam na ko yàlla rek a yàlla moom dong tamit moo jar a topp moom dong moo jar a jàpp wa ma min daabatin amul jenn aji yu kët fil ardi ci suuf illaa alallaahi lu dul ba war na yàlla risqoha war sa gëm wa yàlla warlul na ko boppam donte dara waru ko wa ya'lamu xam na mustaqaraha dëkkuwaayam ci àdduna wa mustawdaa ak denc waayam bu deewee kullun loola lépp fi kitaabin mi ngi ci téere mubiinun ngay aji biir ngay aji biiral te mooy lawul maxfuus wa huwa moom yàlla di mooy buur ba nga xam ne xalaqa bind na asamaawaati juróom-ñaari asamaan wal ardak juróom-ñaari suuf fi sitati ayaamin ci diirab juróom-ñaari fan ci fani àdduna ñii ne ci fanu àllaaxira lu tax mu def ko jàngal nit ñi tey rek wa kaana nekk na arsuhu gàngu naayam nga njëkk muy bind juróom-ñaari asamaan ak suuf alal maayi ci kaw ndox waaye dafa nekk ci kaw air air ba nekk ci kaw ndox lu tax mu def ko bind juróom-ñaari asamaan yi suuf ak ñi fi ne li yabluwakum ngir na nattu leen ayukum anakumu ci yéen ahsanu moo gën a rafetal amalan ci jëf wala in qulta buñ la waxee yow yonent bi na innakum naka yéen mabuusuuna ñu ñuy dekkil ngeen min baadil mawti gannaaw dee la yaqulanna danañ wax lazina ñi nga xam ne kafaru maanaam weddi nañ ne in haasa dir alquran ji di wax waxi dekki illa sirlu muy njabar mu binun koy aji biral ak njabar wala ina axarna su fekkee yéexee nañu walis leen alasaaba mbugal ma illaa ummatin jëm ba diir mooy waxtu rek maxdudatin ba de buñ dëgal maanaam la yaqulanna danañu wax da maanaam dana wax ngir ak ji ne maa yax bi su tërwut wàcc ak mbugal ma yàlla wax ne allah waawee yow ma yaatihim bis boobu dina dikkal leen mu mbugal ma lay sa masrufan déet mu lu ñuy jañ xanu walis leen waxaqe xëy na bihim ci ñoom maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ yësta sun ci ak ji bi ci moom ci mbugal kon gis nga ko yàlla ngoog di rabbul isati jabaroot mi ngi ñuy xamal ne amul dara luy yukkat ci kaw suuf muy mala yeeg njanaaw yeeg yent yent yeeg doomu aadama yi waaye waxut la nekk ca kaw ndax li nekk ci kaw soxluwut wërsëg wi ñoom sàbbal yàlla sant ko mooy seen ñam moo tax tuddut lay nekk ca kaw asamaan di malaaka yaak roxaani yu lii yukkat nekk ci kaw suuf ñoo soxla wërsëg wu ñuy lekk muy nit ñeeg jinne yeeg mala yeeg njanaaw yeeg yi ci aju yàlla nag dara waru ko waaye warlul na boppam ne lépp lu mu lu mu lu mu lu mu bind mu yukkat ci kaw suuf lu mën a doon rek moom gàddu na ak wërsëgam bañ na ko ba indi baatab alaa nga xam ne kaw lay tekki te ndax xarfu istixlaa la yàlla nag dara féetewul ko kaw moo indi baatab alaa ngir daral suñ xel rek wane ne wërsëg ci sama loxo la ne kenn ku ne ci yéen yu doon tooy wax. ni ko dee am di ko wutee ni la ko war wërsëgam di wutee soo ko doon daw sax moom dana daw topp la yàlla moomu nag xam-xamam ndar képp na mbooleem mbindee fi seen saxuwaay mooy mustaqaraa boo jëlee mustakar ibnu mas'ud dafa ne mooy ruhumu yaay yi nekk gañ fa nekk yépp bañ fa ne yàlla xam na ko mustawda nag mooy nit ki bu dee fañ koy denc suul ko fa yàlla xam na ko noonu la ko ibnu Mas'ud moom firee boo jëlee tey mujahid ne na wërsëg ci yàlla dong lay baxee ko moo tax nañ ci dalal xel yi kenn ku ne ci ñun newoon nga fu gën a ruqe mënoo wax mënoo jëf mënoo dara te sa wërsëg mosta tarde kon bu la yàlla indee ci place boo xamee ne nii yaatu na nga mën a wax ami pexe bu ne la fàttewut la nga war koo mën a gëm yàlla moomu kon moo yore wërsëg yi na ci seen xel dal wërsëg yooya nag mu ngi wut nit ñi comme ni suñu dee nim ñuy wutee kon nag nañ dem jaamu ji yàlla rek tabaxee yàlla mbiram wërsëg ñaari wamaa ñu ne ci alquran muy ñaari waar waar wi yàlla ko dogal boppam moo koy bay du booy mooy wërsëgal ñu waar wi ñun la ko dogal nañ ko bay bum booy te mooy ñu jaamu ko rafetal jaamu ga nag dañ fee bay suñu waar wi muy booy ñuy jàqale yàlla ca waaram wa waaru yàlla wa mooy wërsëgal ñu wa ma min daabatin fil ardi illa alallaahi risquha kooku nañ ko bàyyee yàlla du tardé mukk du booy mukk te kenn ku ne ñun nekkoon nga place bu ruqi ci sa biiru yaay jël fa loosement wu neuf mois laaju la ko si son sa lekk sa naan mosta tardé boo soxle sofaas mu tàng nga soxle nga soxle maanaam kilim bi mu sedd te kenn indi lu la facture sa añ sa reer sa ndékki mosta tardé te booba mënoo wax mënoo téléphoné amoo menn pexe bu la indee ci suusu yaatu si jox lay pexe yii di wax yii di dégg yii di gis ya ànd xel ak ya ci aju yëpp bu la ci xeñee yenn ya xam na yoo dese bu ne la fàttewuma la sa xel war naa mën a dal ci wërsëg bu baax a baax a baax dañu bàyyee ko yàlla moo tax kon na suñu xel dal ci wërsëg moo tax Ali ibnu Abi Talib jaaseem ja daf caa bindoon wërsëg lu ñuy séddale la arisqu maqsumun mu ne ko xañaan mooy kuy mooy kuñ xeñ ki kii nay mooy ku ñu ki dafa daan bind ca jaaseem ja ne arisqu maqsum wal xaasidu mahrumun wal baqilu mazmumun lii la Ali ibnu Abi Talib bindoon ca jaaseem ja wane ne wërsëg na ci xel ñi dal mbiram yàlla la Euh, yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu Mas'ud mooy nettali mos naa tukki ànd ak yonantu bi ñu dégg mel ni picc muy sap ibnu Mas'ud yonantu bi wax ko moog Anas ne ko waaw ndax li picc mi wax xam ngeen ko ñu ne ko déedéet mu ne dafay wax ne yaa rabbi xalaqtani ama wa ana jaayaun fa atimni yow yàlla yaa ma bind dama gumba te yaa ngi nii damaa maa ngi nii damaa xiif leel ma ñu toog tuuti rek benn njéeréel ñëw naaw ba tolloog gémmiñam nga rek mu hubbi rek mu dugg ca mu regg ba mu reggee mu commencé at di wax yonent bi ne li meen wax li muy wax ndax xam ngeen ko ñu ne ko xamuñu ko mu ne dafay wax ne eh, eh, dafay sant yàlla ci lii nga xam ne yàlla defal na ko ko qaala innahu yaxmadullaha alladi lam yujisu an yutcimuhu fi xaalatihi wa daif mu ne dafay sant yàlla mi nga xam ne lottut ci lexal ko moom picc mu gumba mii ànd ak li lompañ lompañ lépp kon yàlla bu fàttewut picc mu gumba manta naaw fa mu toog lay toog war wërsëgam di ko fa fekk xel war naa dal yàlla wan na ko yonentu yàlla Muusa ba mu ko yàlla yónnee ca na fekk ma nga àndut ak njabootam nga bàyyi ko ca Suaybu ne leen kaar leen rek ma wutil leen safara soxna saa nga ëmb bañ naan tey la yaam doom ba mu demee di wuti safara fa dajee faak boromam koo xam ne nag da nga doon wuti lu la taxutoon a jug ba dajee li la tax a jug da nga dem ba fàtte li la taxutoon li la taxoon a jug moo tax booba rek la bàyyi njabootam ndax yàlla ne ko idhab ilaa na innahu taxaa mu jóge muy xalaat njabootam gi fekk soxnaam am sa ci guddi googa sax ci la am doom mu ne sama njaboot gi waay ma bàyyi gannaaw soxna saak ñama ànd ak tey ci lu ñu war a mën a dundee yàlla wan ko ko ne ko jëlal sa yat wi nga dóor ba mu dóoree yat waa ci aw doj mu xar mu digalaat ko mu dóor ko ñaari yoon aw sax génn ca sax wa nag nekk na ca gémmiñam nga eh, ay yent yent yu muy lekk eh, su ko defee nag mu sant yàlla ne yàlla mi fàttewut sax wii ak doj wii mu nekkoon ci biiram la ko fay fekk fekk ko fa du fàtte sama njaboot gi ma bàyyi gannaaw booba rek ci la xelam dal nag ca njabootam nga foo waxatu ca dara lu ca jëm kon nag na suñ xel dal ci wàllu wërsëg yàlla fàttewut kenn kenn ku ne fa nga ne ak nan fa ne yàlla xam na ko moo tax kon boo jëlee aayaat yi ci gannaaw dégg nga ko yàlla mu xam na li nekk ci juróom-ñaari asamaan ak suuf waxoon na ko xam na li ci jëmmi dënn yi inna wax leen bi daal di sudur wax na ko fii timit mu amul lenn luy yëkkat ci kaw suuf ak nu mu fi mën a nexee rek lu dul ba yàlla xam na saxuwaayam ba xam na timit ëllëg bu dee fan mooy nekk nekk waayam ki xam loolu nag nañ ko bàyyee suñu mbir bàyyee ko suñu bopp te li ñu war daal mooy fuñ mun di nekk nañ def ay ndigalam bàyyi ay tereem suñu bëggee am jàmm loola lépp yàlla nga ko enregistré ca lawhul mahfuz yàlla bind na asamaan ak suuf juróom-ñaari fan bisu dimaas la commencé àjjuma mu pare bi mu ko bindee ci lépp nag njëkk muy bind asamaan ak suuf bindoon nag gàngunaayam ga moo gën a rëy lépp mu nekk ci kaw air am ndox tamit maanaam tiim ko boo demee ci ahadis yi ñu li yàlla njëkk a bind mooy xaqiqatul muhammadiya ba ko yàlla xoolee xool xëy ba mu ñaq loola andi maanaam géej yi su ko defee tamit nag yàlla xool mu nekk duratul bayda mu def ko muy ndox mu jël ngelaw la digale ko ca jël xarasam gàngu naayam nga teg ko ca kaw ngelaw li nga xam ne dafa tegu ci kaw euh, maanaam euh, ndox moomu noonu di géej googu noonu su ko defee boo demee ci tafsiru xaasin bu Seex na Tijaani fonkon la mbaa nga dem ci ruuxul bayaan dana wax ci loola lu bëree bëree bëri lu tax mu indi ñu fi dafa ñuy liggéeyloo àdduna kër ak liggéey la xalaa ah, barsaxa kër ak niggandiku la xalaa xiraa kër ak fayeeku la mu ne nag indi naa fi seet li yabluwakum ayukum ahsanu amalan loolu wax na ko ca suratul mulki tamit si yéen ana ci kan ci moo gën a rafet jëf ca la muy liggéey kon nañ rafetal jëf yi bu baax a baax a baax a baax te góorgóorlu ci xoolal asamaan juróom-ñaar diggante asamaan su ne ak moromam doxab juróomi téeméeri xat la foo ko fekk dafa koy jamo jamo mu ana salim couleur ya ak matière ya dañu wuute asamaan su njëkk nga xam ne ci la falakul xamari nekk dafa mel ni ay aw aw duus wu ñu wu kaste su ko defee foofu mooy saxuwaayu roowu jullit ñi bu ñaareel ga fala fala ko nekk. dafa tukkee ci mel ni wurus wu weex tàll mooy saxuwaayu roowu jaami yàlla yi ay baat yi bu ñetteel bi mooy falaku zuhra dafa mel ni dañ ko liggéey ci matière am weñ mooy saxuwaayu roowu su ko defee bu ñeenteel bi ca la falaku shamsi ñeen nekk dafa mel ni dañ ko liggéey ci matière bu zone fa la saxuwaayu roowu yi yàlla ya nekk bu juróomeel bi fala mariix fala fuluk falakul mariix nekk dafa mel nañ dañ ko liggéey ci përëm fala la saxu waayu ruuxu yi yonantu yi nekk bu juróom-benneel ba fala falakul mustari yi nekk dafa mel ni koo liggéey ci xaalis fala saxu waayu ruuxu yi maanaam anbiya maanaam tamit nekk juróom-ñaareel ba nag fala suxal nekk moom dafa mel nañ ko liggéey ci wurus fala saxu waayu ruuxu yi ñu ñuul ni ña nekk su ko defee nag ca kaw nag foofa fala arsu rahman nekk muy ruuxu ki mottali yonantu yàlla yi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama euh, kon yàlla ngoog moo tax mu ne wama min daabatin amul jenn aji yukkat fil ardi ci suuf illa ala llaahi lu dul ba war na yàlla risquha wërsëgam wa wa yaalamu xam na moom yàlla mustaqaraha palaasu saxuwaayam ba ci àdduna xam na palaasu saxuwaayam timit ca ndigal juróom wa ba mu ñëwagut wa mustawdaaha ak palaasu dénk waayam ba te mooy bu deexee wala njëkk muy judd tamit xam na ko ba mu nekkee ca ruumu yaayam yooyu yëpp la saxaaba bay wuutee ci firi bi ku loolu lépp fi kitaab nekk na ci téere mu birin bay aji biral te mooy lawhul maxfuus woowa moom yàlla di mooy buur ba nga xam ne xalaqa bind na samaawaati juróom-ñaari asamaan yi wala ardaak juróom-ñaari suuf yi fii sitati ayaamin ci diirëb juróom-ñaari fa juróom-benni fan wa kaana nekk na arsuhu gàngu naayam ga xalal maa ci kaw ndox mi li yabluwakum lu tax mu bind leen ngir nattu leen ayukum anakumu ci yéen ahsanu moo gën a rafetal amalan ci jëf wala in qulta wallaay soo waxoon yow yonantu bi ne innakum naka yéen mabuusuna ñu ñuy dekkil ngeen min ba'dil mawti gannaaw dee la yaqulanna dana wax la fi ñi nga xam ne kafaroo yi dinañ ne in haada déet lii illa mu birul ngay aji biral ku xas dee ba yax ya naka lay mën a dekkeeti ngir ak seen ak dof rek danañ wax loola waaye nag ñàkk a ñàkk a xam rek wala yi naa naa su fekkee yéexee nañ xan walis leen alazaba mbugal ma ilaa ba jëm ci diir mu yaay waxtu maxdudatin ga diguñ lim la yaqulan la yaquluna danañu wax ne maa yahbisu ngëbut ko yàlla nag ne allah waawee yow ma yaati bis ma la dikkal leen mu mbugal ma lay sa masrufan déet muy lu ñu wëlbati xanu walis leen wa xàqa xeey ci ñoom maa lañ nekkoon yës ka di ko yëjji de kon lu yàlla bindu xéeféer moo ci gën a ñàkk xel moom dëgg-dëgg daal ñàkk xel dëgg-dëgg mi ngi xam ci nekk ab ab xéeféer fa la ñàkk xel xem ñu nekk ñoo xam ne su yàlla yéexee mbugalam mi ba ab diir bu ko date ñu ne ah mbugal mi de dara téewut ko te ñoom ña ngay ña ngi ko doon ña ngi ko doon yàkkamti ngir mbugal ma ngir ak yëjji yonantu bi yàlla ne bis bu mbugal ma ñëwee amul dara lu ko mën a fanq xamul dara lu ko mën a jañ faw mu taw ci seen kaw suñ leen mosalee timit nag yërmande moom xéeféer ndeysaanam mu naagu euh, mujj bew saatagaay su nekkee euh, suñ ko mosaleeqee maanaam nattu ñàkk feebar musaalik loolu mooy jikkoy xéeféer kenn xamut xéeféer daal mooy lan rek ci ak dofe moo tax mu tofal ca moom yàlla ne wala in azaq naa su fekkee mosal nañ al insaana xéeféer bi min naa ci ñun mun naa mu tukkee ko ci ñun rahmatan yërmande yërmande gi mooy koom-koom ak wér su mën na sax naa topp ñu nocc ko minhu ca moom innahu naka moom de la yawusun naag waxaa kon la ci yërmande yàlla kafoorun weddi haa kon la wala in azaqnaahu wallaay su fekkee mosal nañ ko nag nax maa xiwu baada darra gannaaw ak lor suñ ko mosalee ak ñàkk ak feebar gannaaw ba mu nekkee ci wér masaru góog jot na ko la yaqul lan na dana wax ne zahaba dem na asiyaatu musiba yi xam ni walis ma dootul séenuuti ak dañan du ca timit sant yàlla innahu naka moom xéeféer bi daal la farihun maare kon la faquurun puukare xàkkoon la ci nit ñi timit illaa lati illa lati nga xam ne mu set ja ca nit ñooña loolu ña nga xam ne sabaru muñ nañ lor wa amiloo ñu jëf saalihaati farataaki naafila yi ulaayka yooye gaa yi lahum ñeel na leen maxfiratun jéggal wa ajrun ak payoor kabirun gu màgg de bu fekkee ab julli moom su ko yàlla nattoo mu muñ yàlla sottee bu ko yàlla sottee xéewal mu bew ko yàlla nattoo mu mujj saalik ku yore jikko jooju rek yore nga jikko yi kon ab jullit dafa war a sant yàlla ci xéewal te nag te xam ne duut luy sax su la safaan ba ñëwalee tamit muy ay nattu foo mën a nekk muñal te xam ne tamit nekkul luy sax métit du sax waaye bànneex tamit du sax moo tax yonent bi daan wax na ñett e, du jot leen mukk fi naay àdduna ak àllaaxira mooy saxuwaayu dogal ak koo xam ne du xool ci biddiw yi jàpp daal nekk gëm affaire xam-xamu astronomie ak koo xam ne dafa dafa sukkandiku jàpp sama sunna kon ku mel nii dëgg-dëgg mbugalam finnaam yàlla finnaak yàlla ci àdduna ak àllaaxira dana ci mucc kuy saxal dogalab yàlla boole ko dogali yàlla yi bu mu ko wér ci biddiw jëfandiku mooy ci sunnaay sayduna muhammad moo tax mu ne thalaathatun laa tamassuhum fitnatu dunya wal axira al muqiru bil qadri walladi laa yanzuru bin nujum wal mutamassiku bi sunnati kon loolu lu jar a bàyyi xel la dogal nag bu neexee bu naqaree yëpp nga wéeral ko yàlla waaye dëkk yu bari ku dee yàllaa leen rey waaye ba fa yàlla gëjee rey nit kenn xamul kañ la kon yooyu yëpp ñàkk gëm yàlla rekk la nit dafa war a gëm yàlla gëm ay dogalam yàllay wax yonantu bi ne ko fa laalaka amaat na yow taarikun aji bàyyi nga yow yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam baxda maa yuuxaa leen la nga xam ne def na wax yu ko ilayka jëm ci yaw nga bañ leen koo jotal wa daaiqun aji xat la ci kesal ga sadruka sa dënn bi yow daal yaa ngi ci am tiis an yaqulu ngir seen a wax ne lawlaa unzilata wàccee àllee ci yonantu bi kan sun ndàmbu aw jaa wala dikk maawoo ànd ak moom malakun malaaka mu koy dëkkal mu koy dëggal ci li mu wax xamal leen rek ne innama anta daal naka yow daal nasirun aji waar rek nga wallahu yàlla wakiilun mooy aji wattu ala kulli seen ci lépp lëf de am wala bahil yaquluna ña ngay wax ne iftaraahu moom yonantu bi duud na alquran wax ju leen xëy la wax leen faatu andi leen bi xasri suwarin ci fukki saar mislihi ci kem alquran yu mel ni al alquran ci fasaaxa ak ci balaaxa muftarayaatin mun mbirum nekk lu ñuy dudde mënu leen ko de waddu xoo leen sax bu leen ca xem mani saxtu mi ngeen attan min doon laa ñu duut yàlla in ku ne nekk saadiqin di way dëggu fa in lam yastajibu su fekkee huñ huñ lakum ñeexal la faalamu xam leen yéen yéeféer yi ne annama unsila daal naka alquran wàcceef na ko daal mboxan mi laay mu làmboo xam-xamab yàlla de wa an naka daal moom laa ilaaha mut benn bur ilaaha wandare moom fahal antum ndax yéen nag muslimuna way jébbalul ngeen yàlla mile man li andil leen layu leer yi yàllay wax yonantu bi ne yow de ndax dangay bàyyi lii ma wax yu ci yow ci alquran boo déggee mu waxee noona ñoom dañ ko daan wax ne ko indil ñu jeneen alquran ju wuteeg jii alquran jii day xas suñ yàlla yi deseel suñ xel yi soo bëggee ñu jubóog yow gëm la indil ñu alquran joo xam ne xasut ñu deseelut ñu bu ay aaya wàccee yu leen ni xas seen yàlla yi di leen deseel nag muy tiis ci yonantu bi ngir xemem ak yaakaar seen ngëm loolu xaw tiis ci moom yàlla ne ko fa la'allaka taarikun ba'da yuuxaa ilayka yow dafa mel ni xamaat na ngay bàyyi lenn ci loo xam ne def na wax yu ko ci yow nga jotal ga nekk lu xaw a tiis waaye ànd ak la muy tiis yëpp nag yonent bi jotal na ko bu la tiis tamit wax gi lay wax naan lu tax yàlla def na ngay milliardaire wàccee ndàmbu xalal ju dul jeex ci yow déedéet mënoo am yàlla am xat ma xam pangetam xadduna ku xam ci yii doo xam ca yaa ku xam ca yaa doo xam ci yii loolu maam xalifay wax wala daal yàlla wàccee am malaaka moom xam ne foo taxaw boo waxee mu dëggal la waaye eh, malaaka moom bu fekkoon di ko dëggal ñoom sax bu ñu ko gisee dee ndax jëmmi malaaka bëtu doomu aadama xattanut ko lu dul ñenn ña ko yàlla jagleel ñu néew waaye ne leen daal waaraatekat dong laa moom nga tamit yow daal wakiilu ma leen nga wattu leen man yàlla maam mi ngoo seeni mbir ñu neen alquran yonentoo ko créé yàlla ne daf leen wax jooju du yonentu arab la yéen a bokk famille ñu ëpp ci yéen moo indi téeméeri saar ak fukk ak ñeent kon lu ngeen lekk-lekk ndigg andi leen fukki saar li ngeen dut munuñ ca tus mel na musalimatul kasaab mu doon jéem jéem guy feeñal ak tële ñàkk a def ko di sa kumpa moo ko gën yàlla ne kon nag jébbalul leen alquran ji su ngeen bëggee defaru àdduna ak àllaaxira sama borom tofal ci ne man kaana ku nekk yuridu na mu alxayaata dund ga dunyaa gu jege ga wa ak taaram ba tax mu nuur ci kéeféer kooku den nu waffi danañu matal ilayhim jëm ca ñoom amaaluhum seen jëf ya ñu ne aaya ji ngistalkat yee ko tax a jug képp koo xam ne sa jëf ngistal rek a tax nga di ko def lang ca jublu da ko ca xam fiyaa ci àdduna su ko defee tamit nag ñu jokkalal la yaataral sa wërsëg wa ca yooya woowum fekk ñoom nag fiyaa ci àdduna laa yub xasuna defut wàññi leen dara ci lu ñu def ulaayaka yooye gaay nag nga xam ne dañuy def te yàlla taxut haddunaa tax ak ngistal na mooy ña nga xam ne laysa lahum de di leen ñaal fil axira ci àllaaxira ila naaru lu dul safara wa habitas yàqu na maa sanaaw lañ jëfoon fiihaa ci àllaaxira genn payoor duñ tax yàlla taxutoon wa baatilun aji neen la maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ yaxmaloon di ko def de yàlla yàllay laaj nag istifaamu taqrir bu ànd ak tawbiix ne afa man kaan daal koo xam dafa nekk alaa bayinatin ci layu leer naññi mi rabbihi ku ko ci boromam wa yatluuhu te mbir moomu dana topp ko shaahidun aji seede ju koy dëggal minu gu ko ci yàlla wa min qablihi jiitu woon na alquran kat kitaabun téere wala kitaabu Musa téere Musa ba di tawreet imaaman mbir mu muy nekk di njiit wa rahmatan mbir muy nekk di yërmande ulaayka yooye gaay dëggal alquran mii tawreet dëggal dëggal alquran mii ñu ñu ñu dëggu ñu dëggal loolu ñu dégg nga ñooñu euh, ñoo xam ne dëggal nañ ko ci andi lay yoonu danañu gëm bii ci alquran wa man yakfur ku weddi bii ci alquran min asaabi ci kuréel yi xéeféer yi fa naaru safara mawiduha mooy mawiduha mooy dëggalam fala tàkku bul nekk mukk yow yonent bi fii miritin ci sikk minu ci alquran innahu naka moom alxaqu dëgg ju sax la mi rek yu bàyyi ko sa borom walakin aksar naas li gën a bëri ci nit ñi te mooy waa Màkka yi ak ñu mel ni ñoom laa yuminuuna ñoom duñ gëm alquran mukk wa man amul kenn af la mu ko gën a rëy tooñ man iftaraa ci koo xam ne dafa duut xanaa laay waral yàlla kadiban nar ulaayka yooya gaay yoo doon def na du moyul leen dul def na yuxruduuna def na gaaral leen ala rabbihim seen borom yowmal qiyaama mu fay leen seen jëf wa yaquulu wax al ashhadu seede ya te mooy malaaka ya doon seede yonantu ya ci seen ak jotal ne haawulaa yi lay gaay li si ne mooy ña nga xam ne kazzabu weddi woon nañu ala rabbihim seen borom allah waawee laanatulaay rëbbam yàlla ala zaalimiin dal na ci kaw xéeféer ya ñoo ñaay ñan mu laa ne na allasina mooy ña nga xam ne yasudduna dañu dëdduloo an sabilillahi walis diine yàlla ji lislaam wa yabxunaha ñi koy sàkk yoon woowa ay wajan mu nekk yoon wuñ jengal wahum ñoom ñoom ñooñu mi ngi koy kiital kaafir way weddi lañ bil axira ci àllaaxira hum ñoom laa wax ulaayka yooyu gaay lam yakkoonu nekkuñu moo gisi na di mën a rëcci yàlla fil ardi ci suuf wa maa kaan nekkul lahum ñaal leen min dul laay ko dul yàlla min awliyaa ki lu dimbale yu daaw def na ful lahum ñaal leen asaabu mbugal ndax dañoo ay nit maa lañ nekkoon maa kaanoo nekkuñu woon yestatoon di attan asabaxa dégg-dëgg wa maa kaanoo nekkuñu woon na di gis dëgg tamit ngir ak jéggi dayoo seen ak sib ca loola ulaayka yooyu gaay la fi mooy ñi nga xam ne xasiroo perte nañ anfusum seen bopp ngir mujj gi mujj safara waddala sànku naan walis leen maakaanoo lañ nekkoon yaamaloona di ko jëf de te loolu mooy jëfee féeri de maakaan nekk ko yaftaroon di ko duut de kon ayaat yooyu yëpp sama borom subhanahu wa mi ngi ci mbëmbëstal wane ne képp koo xam ne li nga nekk layu leer nañ ña ko lal di mel ni yonent bi ay layam lépp di alquran ànd ak loolu alquran moomu bam mu nekkee di ay layu leer moom yonent bi wa yadlu shahidun mu am lu koy topp di ko dëggal ca lam nekk te mooy jibril te kat ñu ànd ak loolu muhammadi alquran mii nga xam ne tawreet ñëwoon na di ko dëggal alquran mu dëgg moomu ñu ko dëggal nag ñoo ñu gëm yàlla piir ñu ko weddi nag ci kuréel yi mooy ñi nga xam ne ñooy dem safara ëllëg mooy nekk seen rendez xamul kenn ku gën a rëy tooñ kuy créer ay fen di ko askanee yàlla ñooña sax def na gaaral leen ci seen borom seede di malaaka yee seede ñu yonent yi jotal nañ xéeféer yee bonoon wane gannaaw dong dëddu yàlla dëddu yoonam wi su ko defee def ko muy aw yoon wu ñu jengal waaye yàlla ne munuñ maa ci mukk ci kaw suuf su ma leen ni bëggal kenn ku leen dimbale xamu fat naa ko ful muy la réer ak la ñu réere laate ndax ñoom xamuñu woon ak dégg xamuñu woon ak gis ngir ak sib giñ siboon dëgg bëgguñ koo dégg bëgguñ koo gis moo tax pertal nañ seen bopp ci mujj gi ñu mujj safara ñooña nag kon mooy xéeféer ya moo tax loolu kum nekk ci yow perte nga ah, ah, ah, boo jëlee abi hurayrata boo demee ci tafsir bu ñu tuddee qurtubi ñu ne yonentu dafa mos a toog ay saabaam toog daje kenn ku ne ca ñoom di tudd mbaax ca yeneen passé woon kii ne Ibrahima amul morom yàlla jàpp na ko karit kii ne Moussa amul morom yàlla waxee na ko kii ne Isa amul mooy roogu yàlla yonent bu génn seen biir léeg-léeg mbaax nekk ci sa kanam te doo ko gis léeg-léeg yàlla jox la kilifa gu ëpp kilifa yëpp waaye poñatam àdduna ak bëgg daraja tax nga wan ko gannaaw di wuti leneen te li ngay wuti li nga baax ko ëpp doole yonent bi ne Moussa moomu suñ dundoo nag man ci jamono bi mën a nekk lu dul samay taalibe yu may topp maa ngi leen xamal nag képp koo xam ne dëppoog naa moom jamono ba àdduna bi te topput safara la jëm nekkoon naa di sàkku ci alquran di seetantal jan aaya moo dëggal wax yonent bi dëppoog moom ma seet ko mu dëppoog wa man yakfur bihi min al ahsaabi fa naaru mawiduhu fala taku fitnatun minhu lii moo dëppal loolu moom lépp alquran mii di dëggal yonantu ko ko wan gannaaw di xool miracle ab keneen bam teree la koo gis soo lëggee sa mooy safara moo tax kon ki xam li gën waroo ko fee bàyyi di tagg li nga xam ne li nga xam a ko gën ñu koy def ñëpp poñetam àdduna lañ cay jëlee lañ ca bëgg te duñ ko ca xam toroxtaane dong la leen di jural kon nañ gëm yàlla doyloo yonantu beeg miraakal yu rëy yi ko yàlla jox ak mag ñu baax ñu ñu yàlla wërsëgalee gis nga ko alxuraanam ji mu jox ko dëkk na ci fukki saar mënuñu ko mu dëkk benn saar faatoo bi xasri suwarin mënuñu faatoo bi suratin mislihi mënuñu faliyaatoo bi hadisin mislihi mënuñu mu ne kon nag jébalul qul itamaatil insu wal jinnu ala an yaatu misli hada alquran laa yaatun mislihi walaw kaana baaduhum li baadin wa waaye nit ñi nag li tax mënuñu gis alquran ak miracle yu rëy yi yàlla jox yonent bi pour yatam àdduna rek ku ko bëgg ñu dajale ko jox la ko bamax la yàlla kat moom buur la bu baandu bëri njaboot bëri yërmande foo téye mu daggal la waaye fexeel ba téye fu gërëm rek waaye boo téye fu mu gërëm ak fu mu gërëmut yëpp mu daggal la ndax lu laay sa wërsëg ndax wërsëg du dara lu dul nit ki jëriñoo rek moo xam da koo xam ci lu dagan mbaa ci lu xaraam kon loo jëriñoo rek sa wërsëg la soo ko amee ci lu xaraam ngaa yàkkamti boo teeyoon da nga xam lu dagan dana la ñëwal boo demee sàcc mbaa nga karta mbaa nga tappale ngaa yàkkamti rek waaye a ah kay sa wërsëg la waaye bala nga woon a dee rek da nga ko xamee ci ganeen xanam kon nañ doyloo yàlla te xam ne yàlla doy na ci lépp sama borom tofal ca sama borom tofal ca la laa jarama dëgg annahum naka ñoom yéeféer ya hum ñoom la wax asaruna way perte lañ fi laaxira ci àllaaxira wax ja jeex mu ne la si ñaa na nga xam ne amanoo gëm nañ alquran wa amiloo ñuy jëf saalihaati farataaki naafila yi wa axbatoo ñu dal wa axbatoo ñu dellu ilaa rabbihim jëm seen borom ulaayka yooye gaay asxaabul ñoom borom xal jaana hum ñoom xaalduna way biil lañ fiha ca aljana de duñ fa génnati de yàlla nag di léeb ne masalul fariqayni kem ñaari kuréel yii te mooy xéeféer bi ak jullit bi xéeféer ba mooy kal fa mel ni ku gumba wal asame ku tëx boole gumba ak tëx kooku mooy melaw xéeféer jullit ba nag wal bassiri mooy koo xam ne aji gis la wa same tamit aji dégg la boole dégg ak gis kooka mooy melaw jullit ndax yàlla laaj nag neew muy istifhaamu inkaar ne hal yastawiyaan ndax danañu xem ñoom ñaar ñi masalan ci kem ñu ne déeréet yàlla ne nag ne afala tazakkaruun taag maanaam ngeen waaru ba mën a topp diine ji xam ne xéeféer ak jullit mënuñoo xem xéeféer melow mooy ku tëx boole ko gumba jullit melow mooy njàccaar boole kook dégg ab tëx ak gumba nag ku ko bëgg a déggale yaay sonn waaye moom du dégg dara saar wi comme màkka la wàcc nag faaw mu tudd ci xisaa yi yonent ya jiitu woon sayduna muhammad sallallahu alayhi wa tudd seen nit ña ba ñu weddee seen yonent ya fu yàlla jaaroon ak ñoom dafa lee ko yonent bi ne ko foofa rek laay jaarak ak sa gaay yile yonent yàlla noox la njëkk a tudd mooy premier yonent bu ñu yoonal indil na nitam ñi ay layu leer naññi yàgg ca ñoom lool ñi wan ko gannaaw weddi ko gannaaw ba mu amee ci ñoom junne ak ñu manqué juróom fukk sama boroom jox ko ndigal mu xetti gaal gaal ga nekk ñetti étage ñu ne gudd ñaayu gaal ga ñetti téeméeri xasabu la su ko defee nag étage bi njanaaw yi bi yent yent yi ba féetee kaw nit ña ba mu koy yett nag nitam ña ñu bon lañ saa yu defaree gaal rek ñu fekk ko di ko yàq ci ko sama borom sant ko mu wut xaj yonentu yàlla noo wut a njëkk a wut xaj buy garde mu jige dañ daan ñëw di ca cabinet mu jige yàlla sat leen feebar feebar ba kat la koy wéral mooy demaat réexoowaat kabina yaag mbalit mañ sotti woon ca gaal ak noox ga rek moo leen mujj saafaraat te nit ku bon bu tooñee nit ku baax lu bon lam ko tooñee woon yëpp dana del siwaat ci moom lu jar a bàyyi xel la noox di xett gaal ga ñu ne ndofam ga mat na nu gaal di dawee ci jéeri mu ne yéen ak may ree li may liggéey bu sottee danaa leen ree yàlla nag noox moomu nitam ñi lay wax si wax na ko ci aayaat yu bari ci li ñu romb ak li nar a nekk ci suñ kanam su ko defee nag bu ca paree dana waxu huut mi yàlla yónni woon ci nit yonantu yàlla yi huut yàlla yónni ko ci nit aad ñi dana wax saalihu min yónni ci samuda ya dana wax luut ak góor jigéenam ya ah, dana wax yonantu yàlla ibrahima dana wax yonentu yàlla Muusa ba door a ñëw nag ca yonentu yàlla Suaybu léegi nag ci noox lay commencé moo tax mu ne wala qad arsalnaa wallaay sa dëgg-dëgg yónni woon nañ nooxan noox ilaa qawmi jëmi ci nitam ña ba mu ñëwee mu ne anni naka man nazirun aji waare laa mubinun koy aji biral ak waare lakum ñaal leen la ma leen di waar mooy allah taabudu bu leen jaamu illa laa ndere yàlla inni naka man a aqaafu ragal naa alaykum ci yéen bu ngeen jaamoo ku dul yàlla ragal naa ci yéen azaaba yawmin mbugalam bis alima may borom ak métital ci àdduna ak àllaaxira fa qaala wax na almalawu mbooloo ma te mooy ñu tedd ña nekk ay patron allazina mooy ñi nga xam ne kafaroo dinañ min qawmi cantam ya te mooy asraaf ya ñu ne ko maan gisuñ la illa basaran lu ngay mindeef misla naa kem ñun ngëneel doxul sa digganteeg ñun wamaa naraaka gisuñu la it tabaaka di la topp illa la si lu nga xam ne hum ñoom araasilu naa mooy woy suufe suñu nga xam ne ñooy ràbb yi ak nga xam ne ñooy wuude yi ak ñi dëbbu daaxi dàll yi baa dee rë yi mbir mu ñuy nekk ñu suufe ji xelaat xamuñ benn gis-gis ñoom dong ñoo la topp ba du ko defee nag wamaa naraa gisuñu làkkum ñeexal leen xalay naa ki ñun min fat leen ci benn ngëneel bal li fi nekk daal nafu nukkum jort nañ leen sax kaafi bi na ngeen way nar ci li ngeen nekk xaala wax moom mu yonentu yàlla noox ne yaa qawmi yéen sama nit ñi araaytum solo leen ma in kuntu bu ma nekkee ala baynatin ci layu leer nañ ñi min rabbi bàyyi ko sama borom wa aataani mu jox ma ta rahmatan nubuwatu min hindi gu bàyyi ko ca moom fa amiyat lëm alaykum ci yéen an nulzimukumuha ndax danaa leen ko togg mooy forcer leen ko fekk wa antum mbir moomu yéen kaarihuna way sib ngeen laa ñeel ko déedéet du ma ko def de wa yaa qawmi yéen sama nit ñi laa asalukum laajuma leen alay ki jotal gi ma jotal risaalatu gi maalan benn alal laajuma leen ko in ajri déet sama payoor illa ala laahi lu mu war yàlla wa ma ana déet man tamit bi taari di fii na may aji daq ñi nga xam ne amonoo gëm nañ comme ni ngeen ma ko digalee naan dàqal huuda yeeg réewkatu dàll yeeg dañuy dëbbu daaxe ñu sori la ñun ñuy sang yi ñu man a ñoo jege ñu man du ma kenn kenn innahum naka ñoom mulaaqu rabbihim way dajee la nag seen borom ëllëg ci dekki kon nag du ma leen dàq te man tamit dinaa daje sama borom ci dekki ko léegi kon dana ma fay loola li fi nekk man araakum gis naa leen daal xaw man ngeen yu nit te yoo xam ne da ngeen a réer mujjëg seeni mbir fa muy mujji waaye xom yéen sama nit ñi man yéen suru na man yéen suru nii anakan moo may tere mina laay ci mbugalam yàlla in taratuhum su fekkee dàq naa leen ku may dimbale ci mbugalam yàlla ma xamut afala tazakkaru ta maanaam ngeen waaru nag wala qul duma wax lakum ñaal leen ne indi aji nekk la fa man xasaa'inul laahi ndàmbi yàlla yi xamewuma ko man daal duma leen waxti mi ne wala alamu man xaw xam naa alxayba lu fàddu wala qul duma wax ne ini naka man malakul malaaka laa man daal nit dong laa wala aqul du ma wax li la si ñi nga xam ne tasdari dana xeeb ko ayunukum seen bët yi du ma wax ne lan yutiyan lan lan lan yutiyannahum joxut leen laahu yàlla xayran yiw allahu yàlla aalamu xam na maa fi anfusihim li nekk seen xol ya su fekkee def naa luy ngeen bëgg a wax isan boobale su ma ko waxee la mina zaalimi bokk naa ci tooñ kaja de xaaloo ñu ne ko yaa nooyee yow noox xat jaadalta naa daggi sante nga ñun fa akafarta bëri nga sax ji daal naa suñu daggi sante faati naa andil ñu bi maa taxidunaa ci la nga xam ne yàlla ñu koy dëxal ci mbugal in kunta boo nekkee mina saadiqina bokk ci way dëgguña xaala wax moom yonent yàlla noox ne innamaa yaatikum daal dina dikkee leen bii ci mbugal moomu ngeen di wax allahu yàlla incha bu ko soobee mu gaawee ko su ko neexee mu yéexe ko waaye li wér te wóor wa ma antum déet yéen bi mu wax gis ci suuf mbaa fu ngeen mën a ne yéen a xam wala yan faakum du jëriñ leen tamit nu seesu nag laahi biir in aratu ndeen namu naa an an saxama laahi biir lakum ñaax leen in kaana bu nekkee laahu yàlla yuridu namu an yuxwiyakum seen ak mbewte da nga koy taawil masdar koo waa samag waaraate ak samag laahi biir du leen jëriñ tus huwa moom rabbukum mooy seen borom wa turjaxuuna def na delloo leen yéen ñëpp ilayhi jëmee leen ci yàlla am wala bàyyil yaqulu na ña ngay wax ñoom yéeféer yéene ak la ko la mu wax nitam ña ak nitam ñu bon ña lañ ko wax lañ ko wax ne ko daal yow mi gisuñ lalul ngay nit nit gim nekk nit ñu yónni ko ci ñoom ñuy nit nga neen la ci ñoom di laqad jaakum rasulun min anfusikum waaye nit la tamit joo xam ne min ki gën a seer ki ñoom ñu ne ko waay maa naraaka illaa basara misluna loolu kon ñu waxoon yonantu bi du nu bees ñëpp lañ ko wax ci mboolem yonantu yi ñu ne ko tamit gis nañ la ñi la topp moo ñu ñàkk solo ñu rek araasilu naa soo ko jëlee araasil nag mën naa nekk jamoo jamoo ndax jamoo ja mën naa nekk jamoo arsal maanaam arzulu arzulu moo ñuy suufe bi dammi zaali su boobaa nag loolu jamoo ruslu la jamoo ruslun mi ngi mel ni nga ne kalbun ak aklabu mën naa nekk tamit jamoo rek au lieu muy jamoo jamoo arasil jamoo arsal comme ni ngay waxee ne akbar jamoo akabir abuta jamoo abaatia mën naa nekk loolu su ko defee nag naka jëkk waxi weddikat yëpp a niroo waxi ñi gëm yëpp ne ko ñu suufee ñu topp soo bëggee ñi gëm la nang leen dàq ñun ñu jege la loolu lañ waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tax abasa wa tawala an jaawul ama wàcceeg la ca xew mun lay wama naa di taar si na amanu kon loolu mooy wax ji euh, ndax kat yàlla saa yu wàccee euh, xéewal euh, ngëneelam ci nit ñu suufe ñi rek ñoo koy njëkk a gëm ndax xamuñ benn kiiraay bu leen di mën a muur loola waaye nag ñi xam ñoom duñ gëm mukk mooy borom alal yaag patron yaag yenn ca borom xam-xam yaag ñooñu loolu day nekk kiiraay gu dox seen diggante ñoom ba yàqal su ko defee ci la sama borom di ca tofal yonent bi def ko muy jumlatul i'tiraad door a dugg ci waxi noox moo tax mu ne am wala bàyyi yaqulu na ña ngay wax ne ñoom yéeféeri màkka ya iftaraawu duut na alquran ji moom yonent moo ko duut qul wax leen ne inaft iniftarayton su fekkee dama ko duut fa àllaye war na ma ijraami sama bàkkaar fa àllaye war na ma ijraami mbugal ak sama bàkkaar ci duut gi wa ana man bariwun aji dañ laa mi maa tujrimuuna ci li ngeen di fàggu ci bàkkaar wa uhuya wax yoof na mu dellu ca noox ilaa nooxin jëm ca noox ne ànd woon naka lay mbir tey mbir lan yoo mën a du gëm mukk min qawmika sa nit ñi illaa man qad amana loolu ñi nga xam ne gëmoon nañ ba pare de muy juróom-ñetti fukki nit ña kon nag falaa tabtayis bul jàq bi maa kaanu la ñu nekk yafanoona di ko def de foofa nag mu xam ne de kenn du gëmati fi la noox nag tàllal loxeen rabbi laa tasar alal ardi minal kaafiriina dayyaaran suma borom nangu ñaan nga nag ne ko defaral gaal maa koy surveiller kenn du ko yàq maa lay wax yu xam-xam bi nga koy defaree ba mel ni war a mel ba du suux ci géej gi moo tax mu ne ko was na liggéeyal alful ko gaal bi ayuni naa ci ak suñu wattu naa ak suñu ndigal wala tu xaatib ni bu ma waxee nag filisi ci nga xam ne xala moo nañ innahum naka ñoom de ñu ñuy labal lañ wayes na ooma liggéey alfulka gaal ga waaye nag wa kulla ma marasaa yoo xamee ne romb na xale yi ci moom mala un mbooloo min xawmi ca ñoom ña saxiroo ñi ree minu ci moom te mooy ñi sànji ko xaala mu ne in tasxaru naa ci ñun fa inaa naka ñun nasxaru danañu sànji ci yéen kama tasxaru na comme ni ngeen ñiy sànjee bu ñu yàlla musalee fa saw fa tax la mun a xal ngeen a xam man koo xam ne yaati dana dikkal ko asaabun mbugal yuux si boobu dana gàccal ko wa yaxilu dana wàcci àll yi ci moom asaabun mbugal muqim bay aji sax hatta isa jaa ba dikkee amruna suñu mbir ci leen wafaara wañax na ak tanuuru fuur bi nga xam ne ci doon soxnaam di lakkee mburu te loolu mooy màndarga bu ca ndox ballee rek mooy màndarga am mbugalam seen nit ña moo tax keroog ba fuur ba wañaxee rek xul naa lañ wax ne ko ihmil xenal sëfal fiihaa ca gaal ga min kulli sawjayni min kulli sawjayni ci bépp ci ñaari xeet is nay ni ñaar laa wax muy góor ak jigéen su ko defee nang ci nang leen nang leen xeb ci gaal gi waalaka ak sa ñoñ ñi mooy sa jabar sa soxna ak sa doom yi a ilaa man sabaqa loolu koo xam ne jiitu na xale yi ci moom alqawlu baata mbugal te mooy sa yeneen soxna sële xam ne dafa weddi di waailatu ak sa doom jële di kanaan ñoom di bokkuñ ci su ko defee nag gaal ga pare na ñu dugg nag wa wax na moom noox ne irkabu xéeg leen fiihaa ca gaal ga bisimilaay turu yàlla mu jiraaha mooy daw waayam wa mursaaha mbir muy nekk tamit di teeru waayam teeru waayam ak daw waayam yëpp tur yàlla mooy gaaswaal ba inna rabbi naka borom sama la xafurum jéggalaa kon la rahimun yërëmaa kon la wahiya moom gaal ga tajri ma ngay daw bihim ak ñoom fii maw ji mbir muy nekk ci duus kël jibaalu yëkkati ko ba mel ni ki doj wa naa daa hoona nooxun noox ibna wa doom ji kanaan wa qaala wa kaana nekkoon na moom doom ja fii maasalin mbir muy nekk ci beruwaay walis gaal ga mu ne ko yaa bunaya yow sama si ndoom taskiru ishfaaq la irkab héegal maanaa ànd ak ñun wala tàkkun bul nekk maal kaafirina ànd ak weddi ñi qaala doom ja ne ko sa aawi xalsi naa tapp ilaa jëbal ci doj yaasimu nii boob dana musalma minal maayi ci ndox mi qaala noox ne ko asima jet jet déet jenn aji musal al yawma tey min amrillahi ci mbugalam yàlla mi ah, ilaa man dul koo xam ne rahima yërëm na ko yàlla ba musal ko mu ànd ak man fa muy waxee rek di yuuxu doom ja waxaala digale ne baynumaa seen diggante al mawju duus ba fa kaana nekk na moom doom ja wala bu la neex nga ne fa kaana mujj na minal muxriqiina bokk ca ñu lab ña waqiila waxeef yaa ardu hee yow suuf si iblaahi maanaam wannal maanaam ma ki sa ndox mi sa ndox mi nga gëqi woon yëpp wan ko naan ko su ko defee nag mu mujj nag euh, la asamaan si tamit fekk da doon taw suuf siy gëkk ndox waya samaaw yéen asamaan ay sebetil maanaam bàyyi sa taw bi waxii dañ ñii séef na almaaw ndox ma ba des dex ya wa qudiya xatteef na al amru mbiral ma te mooy mbir ma ci xalak noox nitu nit nitu yonentu yàlla noox ya bu ko defee musal yonentu yàlla noox gaal gay daw ca géej géej ga euh, su ko defee rajab la fi déparé ba ci euh, yow mu asura mu tombeeg fukki mu jur juróom benn weer mu door di teer ba mu teeree nag wastawan na nga teeree xalal juudi yi ca doj ca juudi yu nekk ca jasiratu den ak mawsal waqiila waxeef buudan alkande lil xaw mi ñeel na nit ña saalimi ña di way tooñ de te mooy nit yonentu yàlla noox ya wa naa daa xoote na nu xoo na nooxu noox rabbuhu boromam fa qaala mun rabbi yow sama borom inab nii naka sama doom gi di kanaan min ahli bokk ci sama ñoñ te yaa ma dëgaloon mu tëg sama ñoñ wa inna waxdaka naka sa dël alxaqu lu dëggu la du luy sooy wa anta yow ahkamu haakimina yaay xatteeg way xatte ñi qaala sama borom ne ko yaa nooxee yow noox innahu naka moom laysa min ahlika bokkul sa ñooñ ñi de bokkul sa ñooñu bokkul sa ñooñ ñi ndax bokkul ci sa ñooñu diine ji te innahu naka laaj googu nga laaj ma ah, ci mucc ak sa doom ji xamalun jëf la joo xam ne xayru saalihin juhut ju yiw innahu naka moom sa doom ji xamalun borom jëf la saali xayru saalihin jëf joo xam ne duhut ju baax taawil lañ ko juróom-ñaari firin fala tas allan na bul laaj maa lay sa lakka loo xam ne ñëw la bii ci ma xel mun benn xam ini naka man a'izuka maa ngi lay waar an takuuna nga nekk minal jaahiliina ca way réere ña qaala nag yonentu yàlla noo wax ne rabbi yow sama borom inni naka man a'uuzu maa ngi muslu bi ka ci yow an asalaka ma lay laaj maa lay sa lii loo xam déet ma ñeel bii ci moom xel mun benn xam-xam wayu laa taxfir lii boo ma jéggalul boo jéggalul lii ñeexal ma watarham nii nga yërëm ma akun danaa mujj rek minal xaasirina bokk ci way perte ña xii la waxeef ne yaa nooxu yow noox ihbit wàccal bi salaamin ànd ak jàmm bu ko defee tamit min naa gu bàyyi ko ci yun wa barakaatin wàccal ànd ak yiw yu bëri xalayka ci yow wa alaa min ak mbooloo mi man maaka ñi ànd ak yow wa umumun ak mbooloo nag sanu matte om danañu yóbbal leen ci àdduna su ma yemu suum topp nga ta leen mi naa ki ñun azaabun bugal alima may borom ak méttital de yàlla ne tilka aayaat yi ñi jàngale mu làmboo xisab noox min an bàyyil xëy bi tukkee koo ñoo koy wax ilayka jëm ca yonantu bi maa kunta nekkoo woon taalamuhaa di ko xam anta yow laa wax wala xawmul caakan sa nit ñi min qabli haza njëkk wàcc ak alquran kon fasbar fasbir muñal ci jotal ak ah, maanaam li nga li li may wàccee ci yaw yow ak li ñu ci mën a lor inal aqibata naka mujj gu rafet lil muttaqina ñeel na way ragal yàlla ñi kon nag gaawal naa ko ci noox ak xisaam yooyu daanaka mën naa wax ne duhut lu lënt ndax li ko téere bi takkaraar bari na lool ci yow yonentu yàlla noox moomu ak nitam ñu bon ñi fi mu jaar ak ñoom